Kébé benn jour dama doon seetaan fii Woz Kali ma àndoon ak sama xarit bu xam groupe Misaal mu jékki-jékki ne ma quel gâchis mu métti lu séparation bi. waaw bon loolu ñëpp la métti mais heureusement que dajawaat nañu euh, waxtaan nañu suñu biir ba mun nañu àndaat daal léegi. ça s'est fait naturellement parce que ça servait à rien de forcer les choses, qu'on ait que des frustrations par-ci, par-là. Donc ça a été difficile, mais on a tous été patients. Et quelque part, on savait qu'on est liés quelque part. Quoi. On est liés, même au-delà de la musique. Quoi. Donc aujourd'hui, nous avons retrouvailles, mais tout le monde a été euh, vraiment ravi quoi, de cette idée-là. Maintenant, un problème de disponibilité, c'est que on est disponible pour le faire. mais nag ànd bi du mel comme ni ñu daan àndee avant mais daal mën nañu àndaat léegi. ànd boobu nan lay mel. ànd boo xamante ne la ku nekk da nga yore sa yëfu bopp waaye dañuy daje yenn saay di tëgg di def ay enregistrement di def ay live après ku nekk delluwaat ci li nga newoon daal. initiative bi nga sumb nii nan la ñëwee si yow. waaw lu mu sumboon la en bala may jóge Sénégal ba 2003 doon ci def ay spectacle et tout avec la basse comme euh, leader de la musique quoi donc euh, tay ji mom la indi wat rek quoi dekkal ko et puis fatli nit ñi ni ma ngi fi ba légui bon dama nekkon euh, dama nekk ba légui sax extérieur di liggéey yore liggéeyu jambour mais bima démé ba nga xamante légui nak mbag mbagg yi gën na oyof la ni kon mun naa wat ci lama dan def et pour ñoo présenter ko wat wa Sénégal quoi. ndax liggéey bi nekkon na lu yomb. initiative bi nga jël. Euh, du musique bi moy li ci jafé quoi li ci jafé moy communication bi et puis euh, travail bi ngay mën def pour mën a jaay ko pour mën ko jox nit ñi pour nit ñi mën ko accepter quoi lolu moy liggéey bi quoi liggéey bi ci gëna metti moy toute la communication qui va autour pour pouvoir le le commercialiser quoi. Thank you. musique sénégalaise. Il y a beaucoup de nouveaux chanteurs de nouveaux jeunes musiciens et tout donc qui sont en train eux aussi d'écrire leur page dans l'histoire de la musique sénégalaise Je ne vais pas critiquer mais je dis que nous nga ne ñoo pas du tout ñoo leen jiitu war nañ ci une expérience war na servir toujours pour que le Sénégal gagne musical genre musical bi ngeen di jouer ndax am na chance mu am place fii ci Sénégal. musique buñ ko liggéeyee ba mu baax am na place fu nekk mais comme li ma wax la rek après c'est la communication qui va autour c'est euh, le management qui va vraiment qui peut vraiment avoir une répercussion sur euh, l'écoulement du produit quoi buñ ko amee bu ñu amee ko ñu jàppale rek oui c'est une musique qui peut être consommée parce que. Ce soir, vous avez vu la preuve, il y a des gens qui se sont, déplacés pour écouter. Ils savaient que ce n'était pas du balach, mais bon, ils ont quand même apprécié. un réserveur public sénégalais. Euh, vous parlez de Missal ou de Sambalobé Yo Sambalaobé avec Missal yep. Ah, ouais, man prépare un album c'est pour euh, l'année prochaine, Inch'Allah, 2020. Et Missal, live, pour l'instant, on a un projet de jouer en live, mais on a un enregistrement. c'est demain, inshallah, ce sera du jazz sénégalais. Jazz sénégalais, bon, à peu près, moi, tout direct, quoi. C'est la basse comme lead avec des mélodies bien de chez nous et des improvisations un peu jazzy, quoi. waaw kooku moom daal mooy li nga xam ne moom lay pare déwén incha allah quoi. waa Padois nan la ñu appréhender seen retour si biir scène bi. ah gis nga tey soirée bi waa Padois ñoo fi ëppoon tey ñoom euh, ñoom ndeysaan xam nga ku nekk biir misaal rek ku jóg rek dañ lay jàppale dañ lay dañ lay soutenir pour loolu toujours rek am na benn lien bu nekk ci diggante ñoom ak misaal et puis ñun waa Patte aussi ñun waa misaal ak waa Patte aussi dafa am benn lien bu nekk si ñun donc loolu ça fait chaud au cœur quoi c' est un grand plaisir quoi. Samba Laobé ñu ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup kontaan di leen gërëm di leen sant merci beaucoup.